jërë ngeen jëf mbokkee xarit yi béggati nañu bu baax baax dajati ak yéen chaîne chaîne de télévision bi ñu nuru ba noppi dañu ñu dajale la 7 TV la télé qui nous ressemble et ñu leen di déwénati di leen baal àq te di leen baalu àq ci bésu tay bi nga xamante ni dafa tombeek bisu it di bisu julli di tabaski di feet boo xamante ni àdduna wërgal këpp rawatina jullit yëpp dañu koy màggal 7 euh, TV baaxoo at mu jot muy ànd ak yéen di seeti ñenn ci ndaanaan yi ci réew mi ci célébrité yi di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom tey mu fas yéene nekk benn spécial tabaski boo xamante ni édition bu spécial lay nekk plateau bu spécial lay nekk entretien bu spécial lay nekk li ko waral mooy dañuy dalal koo xamante ni c'est une personne spéciale li tax ma wax c'est une personne spéciale mooy nit la boo xamante ni dafa am ay facettes boppam dafa am style boppam style bu particulier mu mbëru làmb boo xamante ni c'est un champion boo xamante ne il n'est plus à présenter il a su s'imposer fexe ba bokk ci làmb dugg ci làmb ci atum 2006 jàpp 2007 tel cee wane boppam fësal ci boppam tegale benn dynamique de victoire bu am solo ku daan Siteu ku daan Nees ku daan Ama balde ku daan mbay Diouf ku daan Amaneex kooku xam nga ne champion la il se nomme de son vrai nom wala boog tur bi ñu ko xamee ci làmb guy gi am tur boo xam ne da koo dab ci biir làmb ñu doon ko wax le roi du sampi lan moo ko waraloon mooy mbër mu mu jàpp rek day aras ba ci kaw dóor ci suuf gars yi ràññee woon ko itam ci style bi nga xamante ne amoon na ko ci ay kàddoom indi kàllaama gu bees di wax français yoo xamante ni li yàlla xam doy na tey on aura le plaisir ñu ànd ak moom gunge suñu ay téléspectateurs sur les antennes de la 7TV ñu ngi kontaan bu baax a baax fekk si ko fii ci biir këram fas yéene xam ana nan la jullee ana nan la passé feetu tabaskeem lu jiitu loolu ñu dalal ko bàyyi ko mu nuyu ak suñu ay ak sénégalais yëpp guy gi c'est un ngi kontaan ci seet bi ñu la seet si waaw Mara maa ngi lay fay di wax ni auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba sant yàlla julli yonte bi sant suma ñaari waajur di nuyu waat waa Thiénaba Seck bu baax di ñaanal Baye As Seck yàlla oyofal yéen bi sama xalifa général maam Cheikh Ma Tidiane ak Baye Abdourahim yàlla yóbbale àjjana yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def du nuyu waa Thiénaba bu baax a baax a baax nuyu suma papa ak suma yaay suma grand frère Modou suma rakk Babacar suma rakk ay Aysa sama soxna bee bi maa ngi koy nuyu bu baax nuyu waat waa Thiana bu baax bàyyi ma kenn su ma suma absa suma soxna grand frère maa ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu suma suma sama yaay waree saar nuyu képp koo xam ne wax dëgg yàlla da ngay jàppale guy gi di ko bëggee di nuyu waa 7TV <laughs> <laughs> waaye bien nous sommes nous dans nous rek. nous sommes nous dans nous benn la waaw di la nuyu di nuyu seen directrice bi xaw ma directeur bi. waaw Maimouna Ndour vraiment. télé du sama du du ma gan ci moom. yaa bëgg de mais Maimouna Ndour kay war nga xam ne directrice la. waaw non damaa jiw man maa la yàlla topp ma ci ay français. déedéet kenn topp la ci dara voilà di nuyu Maimouna Ndour vraiment. Mhm. c'est pas la première fois c'est la six fois vraiment kon loolu télé bi suma télé la. ñaanal yàlla rek yàlla defal leen jàmm yéen ñi fa nekk ñëpp. Mhm. Euh, parce que loolu mooy àdduna àdduna wax dëgg yàlla bu ngeen nekkee li ngay ñaan li ngay njëkk a ñaan mooy yàlla dafa leen jàmm ci liggéey bi ngeen liggéey hmm. ci ngeen gën a mën a retrouver lu bëri bëri te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def nuyu sa caméraman yi nga àndal hmm. nuyu sama waa koñ waa ku ci mel ni Pape Ndoye euh, John Sina hmm. Bolo Pape Ton sama taalibe Lamine Niass Omar Der Fagne Niass sama dëkkandoo yi waa kër mère meer mbay waa kër Cheikh Ndigal Fall maa ngi bu baax a a baax képp koo xam ne daal wax dëgg yàlla di leen baal ñëpp nag di baal ñëpp di wax ni déwénit yi mm. di wax ni bonne continuation bonne révention ba longue vie ba longue santé ñun ñëpp dund <laughs> amiin yàlla ñun ñëpp lu dund waaw Mara di la wax ni kan <laughs> ñu xaar question rek question réponse ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek muy euh, muy loo xam ni day neex sénégal yi mm-hmm. neex àdduna yàlla mosuñu ci accident làmmañ yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def Habib Yara bi question yi moom dañ koy tàmbalee ci bisu julli gi tey tabaski la euh, guy gi doomi jullit xëy tabaski tey mm-hmm. bëgg ñu xam nan ngay passé sa tabaski boo xëyee julli ji rey sam xar euh, nan la journée bi di déroulé waaw Mara da xëy euh, nuyu paa bi mm-hmm. sa papa moom vraiment loolu yar nañ ci mm-hmm. waaw ndékki ba suur nag ndékki bu ndamee ñun dañuy naajee naajee jógee dànk jullikaay quoi mhm. heure bi ñuy jógee dànk jullikaay heure boobu noonu day naaj parce que ay midi mhm. nga doog a rey ñëwaat bala nga añ day naaj mhm. waaw boo ñëwee fekk bee bi dina defar lakk gi ba pare nga ba ñëwee nga doog a lakk nga doog a lekk lakk bi quoi xaarat ba ngoon gi nga doog a dawalaat bu ko defee nag boo dawalee ba pare ànd ak soxna si xam nga dem ci sama gars yi ami d'enfance ku ci mel ni Mansour Ndiaye Cheikh ba Mot Seck Gora Ndiaye maam Serigne Niass Turki ak Baye Serigne Sylla Turki mhm. ak maam Serigne Turki ñu ngi leen nuyu bu baax a baax fan ami ami d'enfant bi mhm. xam nga ñoom ma dikkee xam nga ñoom Alioune Diop ñoom ñëpp ñu toog waxtaan ak ñoom Talla Ndiaye doogo mu nekk retrouvaille waaw parce que ñun ñi ma lay wax ne ami d'enfant la ñoo defandoo lépp mhm. waaw ñoo defandoo lépp vraiment ba tey mi ngi rafet kon defe naa duñ mën lu dul rek xam nga sant leen bu ñuy def émission wala ni carrément xel mi jugal leen ci parce que loolu lépp boo seet depuis foo xàmmi ko nga euh, ngan kii kat wala lii ñun ñoo defandoo lii chaque jour nga di ko nga di ko fësal mm. kon defe naa dañ koy fësalaat saa bu ñuy def émission te di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm yi saytaane ba ñu dugg suñu diggante quoi mm. noonu daal lañ koy defee bu ko defee boo ñëwaatee nag guddi gi mm. ñu defal soow yu ndaw ndawaan yi am gën a am mais guy gi dafa mel ni ku bëgg lekk non damay lekk damay maase maara man yooyu nekkuma ci sax euh. maas bien donc maas bien dóor bien dormin bien dama man damay loolu kii saay parce que man damaa yor soxna su man togg nag. yàlla damaa yor soxna su moom dafa sob man sama soxna dafa sob li tax ma sob ci internet bi lay fanaan lu mu gis dina ko capté macha allah yaa de yaa de mémoire bien lu mu gis dina ko capté su xëyee togg bu ko toggee da nga naan kii ndax dafa jàng dafa nekk autorité affaire yooyu ok fekk nag boobu day xam nga day day ci internet bi lay xëy ay bagages am quoi te des mu toggal a plate boo xam ni ñi jàng waaw ñi jàng sax hôtellerie ñoom ñoom kiiwuñu ko quoi xamuñu ko mm-hmm. kon loolu tamit sant yàlla mm-hmm. parce que tamit mënoon nga am soxna soo xam ne xam nga ceebu ñebba la lay toggal dëxin sombi yooyu te du jaar yoon sax te du jaar yoon te na lekk di gañe doo ci mën dara <laughs> mais comme que yàlla ngay suturaal mi ngi lay toggal yoo xam ne yu baax la macha allah mais mais guy gi la moo la gënal ci xar mi yow tabaski la moo la gënal lakk bi togg soo xar mi moom maara waaw li ma dox say Abdou Karim muy reetaan rek man ah. say soo ma reyee xar daal mënuma guy gi loo ci soxlawul ci xar mi ma ne ko ñeent tànk yi ngay génn bokk ci ak baat bi li des lépp soxla naa ko si Abdou Karim moom neen looloo koy te man loolu laa lépp lépp koy mangé lépp dama koy mangé calgeen lépp dama koy mangé moom bopp bi rek ngay génn bopp bi ngay te bopp bi dañ koy fees dañ koy supp bopp bi dañ koy fees dañ koy supp ba ñeent daal mooy génn ak ñeent xar ñeent tànk yi te ñeent tànk yi mën naa tànk yi non ñeent dañ koy raxas euh, euh, lakk ko pour pour pour dans deux mois euh, tam xarit allah Ah, guy gi dafa mel ne mag a ko yar parce que li ngay wax noonu bareetul lu ma koy gis yow wësam ngay wax de sama yaay dafa gëm aada ndeysaan sama yaay bu rek day jël jël temps ndeysaan di ko uh-huh. nuyu bu baax sama yaay muy koo xam ne vraiment yaay ju mat yaay la waaw moom su ba ma xamee ba tey uh-huh. moo wax dëgg yàlla yaay ju mat yaay la man tamit ma am baay boo xam duma ni Euh, mais baay bu gën baay daal bu gën ci bàyyi daal man laa yor fi ndool mm. waaw parce mm. boo ko waxee tamit ñu ne man sama baay gi waaye man tamit sama baay moo gën sama baay bu gën ci baay waaw papa bu ñu xàmmee ko ba tey mm. amuñu lenn lu ñu metti ñun amuñu menn lenn lu ñu naqari waaw day daw pour ñun bi ñu demee tamit wax dëgg yàlla ba xàmmee ba xam ne ñun mënal nañ ko boobu lañ ko ni teel sa loxo muy man ak suma mag ak sumay rakk Babacar ak man xam nga euh, ak Mourou suma grand bo ak sumay rakk ndaaram Aïssa amul kenn ku seetaan sama papa ci dara waxuñu dara mais seetaanuñu ko dara parce que mm. ni boo yore ay nit ba te ba ba bañ màgg mm-hmm. euh, li leen war rek mooy ñu yor la ñu yor la te boobu ba tey ñu ngi sant yàlla parce que maa ngi fàttaliku mm. boobu bëreeguma mm. waaw ma dem ñëw am vingt cinq mille ci oto bi boobu maa ngi ci oto bi ma ñëw ne ko papa vingt cinq mille yi yow jënd ci xar quoi boobu nag laa xam ni ñaanu waajur lu am solo la boobu ba tey barki alxuraanu karim dama koy gën a mën boobu ba tey nag li ma la wax nii loolu loolu dafa ma jox leçon lu bëri mm-hmm. benn gàmmu tamit dafa ñëwoon boobu taxawaguma nii mm-hmm. gàmmu gi ma ñëw ma ne ko papa gàmmu daaw dara daawal manqué lii maa ko jàppale ci gàmmu bi ba mu jàlle ba tey gàmmu su ma reyul ñaari nag rey benn nag wala ma rey ñetti boobu ba tey nag kon defe naa ni nañu gën a soñ son sonnaat ci waajur yi loolu message la booy nañ gën a sonnaat ci waajur maara parce que mm-hmm. waajur yi ndey ak baay moo fi jur sëriñ ndey ak bi yàlla waxee ba pare ndey bàyyi la ci teg te ndey ak bàyyi day loo xam nii boo koy am doo xam lim lay jariñ hmm. mais bis bu la wanee ginnaaw yàlla na yeex ngay doog a xam ndey ak bàyyi lu des fois man suma papa day waxtaan ak moom hmm. man ne ko papa mu ne ma ne ko fi ndool nii man ak keneen la ci yem joxe bi moom balu si la lu luñ la jox ci ñun lay dalaat buñ la joxul it bal bi du ñëw Mm-hmm. waaw kon defe naa ne ñun man sama mag ak samay rek. Mm-hmm. bul wax kenn lenn ñaanal ñu rek. Mm-hmm. ku ci gën a ga ku ci gën a man lu bari daal. moom di nga gis résultat yi di nga gis yi ku ci gën a yéex tamit. seen mbir day yéex rek. dëgg la mais nag dañoo yor papa yoo xam ne wax dëgg yàlla dafa yemale ñë man sam man sama papa. man suma xarit la ñëpp doomam xarit la mais moom suma xarit la parce que man day waxtaan ak man ba nga xam ni kii daf ma bëgg des damay toog fii du ma dërëm munuma ñu ma yónnee la ñaata. waaw yónnee ma rek mu yónnee ma des fois nii samay doom. Mhm. dafa am lu ñu leen jënd sax ordonnance parce que ñun bëri def nañ ñuy wax beaucoup de millions. Mhm. mais tamit lu ñu am dañ ko bokk ak nit ñi. Mhm. comme gis nga tabaski gi nii da ngay ñu ngi koy mën ñu ngi koy a mën di ñaan yàlla rek ñu koy gën a mën parce que boo joxe tamit loolu yàlla dala koy gën a dimbalee rek parce que loolu mooy àdduna quoi parce que ñun ki jox ki confiance muy war a saar boo ko fekkee julli gi ni mu doon def da nga naan noonu julli gi war a saar day joxe ba xari jeex mu dem jël ay nag rek ñu rek nag yi di ko toj ba nag yi jeex mu jël xaalisam di ko joxe. kon dafa naa ni te ñun mooy sunu lépp kon duñ mën lu dul rek. waaw te waaw ko ñaanal daal moom tamit yàlla mm-hmm. defal ko jàmm. Mm-hmm. di nuyu famille Warsar gi yëpp ko ci maam mel ne maam Mbay Paris. Mm-hmm. ndax suma grand Adama yaare faar suma xarit. sama yaayu turandoo ñanga mbaya xam nga bira NBA sama bira mu njaay bu képp ku nekk kër war saar na suma grand. sama turandoo Sayar képp ku fa nekk ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm di di la jox sa wàcc waaye mm. euh, wax nga ñu ni ngay passé tabaski en tant que responsable en tant que borom kër mm-hmm. soxna si defar ak yooyu mais dañuy dellu soit tuuti ci ginnaaw bi nga nekkee xale mm-hmm. euh, guy gi dum daan passé tabaski ñaani ndéwanal bi wala yooyu non euh, man moom mara bi ma nekkee xare waaw ay xuur laa gënoon a bëgg su sam papa bu mos a indi xar yi ah. papa maa foo xuur maa foo xuur maa wax ñu ma ci kàddu yi nag quoi mais mais nag loolu dara juge naturel non juge naturel sax xam nga Sénégal voilà loolu ay xuur ah. papa maa bu xuur sama papa mën na ma ci dër benn bis xar mi wàccu góor gi ma jàpp xuur yi ma ne ko papa maa bu xuur maa maa koy fàttaliku boobu ñetti mbar lañ papa maa bu xuur maa bu xuur maa bu xuur te effectivement xuur yi damay jaral du dama koy raxas ba mu set yor sama boolu bopp barke alxuraan ba léegi ba léegi wala non y' a y' a beaucoup dépassé de xuy de tamit <laughs> loolu maanaam affaire xare loolu affaire xare woon léegi dara la jar léegi bu ma gisee sax du xool. ndeysaan du loo gis affaire jeunesse la. affaire xale la affaire la. Mhm. loolu mi ngi mel nga nekk xale. Mhm. dee dalay dalay daw ngay dàqi dee. chaque jour day yow dalay daw ngay dàq. moo tax affaire yu la rey rek ngay def mais boo nekkee mag da ngay daw dee dee di la dàq si. mais boo doon jox benn anecdote mm. c'est-à-dire loo xam ne doo ko fàttee nga dund ko ci tabaski mm. mais doo ko fàtte waa benn souvenir bu la marqué ci tabaski waaw te souvenir bu ma marqué mooy bi ma fëree dama fëroon barki Seydina Muhammad sama gémmiñ gi koo géex du man biddaay sama ay xiw sama biir wuu hii rek ngay dégg barki Seydina ma wiw maa non maa tabaski du ma ko fàtte hôpital la hôpital la mujjee bindaay mujj gi dama bëggoon ñu jam sama biir bi bën ci raccord air pour air bi génn <laughs> sama biir ne kenn barki Seydina Mouhamed kon yaa kon bëgg lekk gi yàgg na ci biir loolu yaa ngi nekk mbër man bi may mhm. dama naan ñëw jënd kilo yàpp teg ko kilo yàpp ñu daggal ma ko yàpp mooy boos bi quoi ñu daggal ma ko dagg yu ndaw fat bam ndeysaan Mbàkke ñoom ñëpp maa lay nuyu ñu nekk mhm. Mbàkke ñëpp maa lay nuyu quoi mhm. garasu Mbàkke bi su ma masoon gars ak sama patron boobu gay di nuyu sama grand Tafa Napoli ak Mbay Napoli ak xaritam yaa sama tante Maïssa sama tante Paala Baara ak Jaara Soxnaam Maguette képp ku nekk rek sama kër turandoo maa leen nuyu baax a baax a baax nuyu waa Pikine gi yëpp su laa lang nii su su su ma masaan ñëw Mbàkke damay wàcc dem ñu defal ma boos bi quoi dama ko commande bu may ñëw ñu defal ma ko togg yu sew potu ndaa yi laay teg lañu may defaral dutee ma jël kilo mburu ko dagg ko def ci mayonnaise tas ko ci jëlaat benn kilo mburu dagg ci mayonnaise tas ko dagg ko ci lem ko toog lekk léegi euh, euh, chaque jour xam naa nii ne yow mën a nettali di wax ni mbër bi fii ñëw boobu trésego lañu ma tuddee parce que man samay tànk dafa dëng te trésego dafa mënoon dugal mën a dóor te man dama a football ok gars yi tuddee ma trésego ma ñëw lekk lekk lekk gis nit ñi commencé ñëw di toog ma xam ne ñii ndékkiwuñu seetaan si mën man lekk ko ba mu jeex benn waaye parce que boobu ko man lekk ko ba mu jeex benn waaye bu ma ci tegaloon sama bët du ko gëm ma xam ne kii dana nettali si man ko fàtt ba ñii ne leen man xale la jamono boobu noonu Baye Modou Gote maa ngi koy nuyu xamoon ne man dinaa nekk mbër boobu saaku 100 kilos yu dugub yi mhm. boobu dañ ay nit quatre personnes ñoo koy jàppoo pour mu jóg mais man damay yéeg ci kaw ñi may gis ñi may dégg xam ne li may wax bu baax a baax mhm. suñ ma ko joxee ba mu bës ko nii dama koy sànni au lieu muy yëkkati ko rek ko mais dama koy sànni ba sangu bi dépassé wa ma teg ko wër na yàlla am na benn bis ma jàppanseeg benn gain dama ko ni rek mu ëw rek ma daggal ko saaga ñaa ngi jégalu ne ko xamuma ana ñu ngi ko defoon waaye as waaye saago ko saago parce que li ma folie de jeunesse quoi waaw waaw ne ma non loolu du folie de jeunesse loolu wóorul daal ni ay xam làmb ñu lu mu doon boobu la boobu la pare ci ëw boobu la pare sax di ma xool yenn xool mbàkke dama daan ñëw buñ gaaree nii mm-hmm. oto bi lay raxas ba mu set bala ko ba mu set di xaar pour mën a dem daalu Salaam yëpp pour mën a demaat Dakar par premier premier arrêt dama bëgg su ma ñëwee kër Ibra Yaasin réglé ko bala maa ñëw ndula xam la fa nekk su ma ñëwee ba Jurbel génn sóoraale ci kam 700 700 ji pour bu ma ñëwee ba génn foofu nag su ma ñëwee ndàngal ma doogo fi ràmpali Dakar laay tijjeetee sama porte waaw parce que man dama miin foofu mhm. bu ma ñëwee Colobane nag ñu raxasal ma mhm. ma dem foofu fi ñuy defee am na yàpp yoo xam da ngay capp mhm. nga ni bii ñaata capp capp bool yi cap moo tax ñun am am nañu baadoo la man yooyu fi doon nii ba ma ko xoolee sama xel mi day téye te billaahi dama daan dundee xoolal ñeex moom ba ma ko defee te mayoo ma ñeex dañuy jàppante may ma ñeex laa lay wax may ma ñeex nga may ma man naan ci bët géer te léegi waratoo ko lekk yow sax bu ma ko rombee dama ñii ak ñu salté te fekk boobu moo man moo ma tolloo nii moo ma tolloo nii bu ñu déggee ah. waxtaan bi di nga xam ne guy gi nit bu am mhm. jaar jaar la. non du jeex nañ ko nañ nañ ci am yuñ ci tof. yuñ cof rek voilà yuñ cof man dama mm. bëgg bu set TV ñëwee di ma seet si. dama mm. bëgg di développer lu naturel parce que mm. télé bi suma télé la. dëgg la man xam naa ne télé bi parce que may mënoon dóor. y' a y' a beaucoup de relations 2STV ak Adja Biteye. Euh, ak ak beneen. Adja Astu ak Adja Astu. Adja Astu bu tukuróol yi waaw mhm. Adja Astu bu bi may yegg si yaa ngi may laaj Mor aussi. voilà voilà Mor sama xarit la. <laughs> non télé boobu suma télé la. foofu sa kër la suma kër la kër la donc mm-hmm. comme jaar jaar bi du fi xet dañ koy tënk rek. pàcc bu nekk ñu laal ci dara guy gi étant xale màgg nekk ci kaari lang euh, jóge nañ ci tabaski. dañuy dugg ci guy gi nekk mbër avant guy gi di dugg ci arène dafa toj mbapat guy gi lu ko booleeg làmb. non El Hadj toj naa boo doon topp mbapat xam ne toj naa mbapat barki alxuraan bëri ñu fi nekk champion ñu dégg daal maa leen gën a nekk champion ci mbapat. sama Xaadim Mbay maa doon tëdd fi doon tëdd ay samay drapeau la demoon ba te def ko muy nekk matelas. wallaahi drapeau yi drapeau yi la def mu nekk matelas. drapeau yi li ma jël ci drapeau man damaa bëggoon drapeau. man damay ñëw nga tëgg mbapat. Hmm. nga ne ma au contraire fay naa la tey deux cent cinquante wala trois cent mille ma la bëgguma xaalis drapeau bind ma ci bind ci waa ji bind ma ci def ma ci digg bi bëgguma xaar damaa bëggoon ay preuve drapeau. ok drapeau damaa bëggoon ay drapeau dañuy def émission mi ngi woote rek bëggoon ay drapeau ba mujj gi mbëru drapeau sax lañ ma doon wax. dèjà bi may daan moomu aller retour bi ma koy daan vendredi daan ko dimanche dañ ni kii xoolal dem defalu drapeau ñëw daan fii ku mën a daanee mooma. te xam nga mooma. Mm. waaw mooma ki dàq la bëri ci géej waay bëri ak Modou Lo Alassane mm. Diouf nii nag moom. Mm-hmm. parce que man li ma yor saako jaroo passage di ko nuyu moo ma ko jox. ñu topp mbapat yëpp xam nañ ne champion. non man kon ba ma demee ba mu mu mu mu daan. Mhm. ma dem bay dem Thiès quatre ans may bëri Thiès nit suma laal suuf. di nuyu foofu xaar mbay mhm. ak Baye Zal. Mhm. waaw di leen nuyu baax di nuyu tamit Bakka Dieye. mais boobu da nga doon bëree bëree. Bakka Dieye moom fa daan yóbbu boolem ak Baye Zal Bakka Dieye muy ku baax. waaw nekkoon kër kër kër Mamour di ko di nuyu tamit vraiment Mor nit la ko xam ne muy Tafa Napoli muy Bakka Dieye ñoom ñëpp Mor joxoon na oto muy Ama Mor mhm. ba demee nag ba xam ne nekkatuñ ci oto yi man ma ñëw fa ngénte am mun ma noo tey mbappal am na fa ma ñëw boobu Bakka su ma ñëwee yóbbu ma ma bëre demaat këram Père ma dem këram ñu reer ñu dem ma jël bi mhm. ñu doog mais boobu da nga doon bërintu pour def ko fo wala da nga gëmoon ni dama gëmoon damay nekk champion ne doo la ëppoon doole parce que tamit y a de sans cent cent dix kilos laa woon xaw ma xaw ma xaw ma cent cent cent cinq kilos boobu rëyu ma woon quoi mais boobu macha allah. da mm. tous de bois mais xam naa ni ku ma ni ciix li ma bëgg moom di nga ko def moo bëggee nga tëdd nga tëdd moo bëggee nga jóg nga jóg. Mm. waaw parce que boobu maas bee maa ngi lekk bu baax. te loolu ku wérul ku nekkul ci jàmm doo ko lekk. waaw léegi nag xam nga ma xam ni man mii wax dëgg yàlla li may teg sa yaram li may lekk war naa nekk mbër. bañ b mu naax saay. Mm. su may dem di bërëntu mbapat géej sama sama sama ganaar bi Modou moo waroon gën a nekk mbër mm-hmm. bu demee ñoom bëri ñoom saako joor ñoom bàmmaltey njaay mbaytin bëri ñoom bu bëri métti mujj gi man su ma ñëwee ci géej gi daan ñëpp bàmmal bu ñëwee ñu am na ko fi benn sëfoor ñëwoon na fi mm-hmm. mu mer daan na ñëpp benn bis bi mu ñëwee fekk fa bàmmal bàmmal di bëri moom bëkki biir bi biir bi comme xeer rek mu commencé mbéj ma ma daan ma daan ma daan ma ko def histoire ma ñëw saako yor man saako yor na ma non kii bàyyi ko nii rek moom nii la mel bàyyi ko ma commencé nag xam nga di déglu Saaka Joor mm. moom ma nii ngay def boobu Saaka Joor bu ma ko téye rek bu ma tëlee damay tourné xaw ma boobu nu ñu koy daanee mu topp loolu su ma demee Mbapat ànd ak moom muy bëri luur muy bëri la set mooy filaas boobu mu daan def ci làmb tëll rek mos mos naa tël doublage waaw mu tëlee doublage doublage di ma ne ko laajoo ma ba ma laajoon di di di nga soral lu mënoon la filaas boobu non da koo tël mba mel ni kuy jëm mari fara barke <laughs> romb leen billaahi non sa kër sa kër baaxul ci ponkal eh. ak passage di ko nuyu di nuyu soxnaam eh, mais mais mais xam nga jox ko jox ko tamit su ma lépp boole mm. ko école bi waa bëgg ma Omar Fadam ñun ñëpp bëgg ma mm. kooku fat na émission la ñuy moom mii Euh, ñoo bokk ndey ak baay mais. Hmm. dafa mel ni man maay taawu kër gi. lu ñuy def ci kër gi daan laal leen maseer. muy cër boo xam dafa ma diis mais tamit. Hmm. ko xam sama papa xam sama yaay xam famille bi xam ne ñun ñoo lañ a mel. Hmm. ñoo bokk lépp kenn xamewul suñu dara. suñu dara kenn xamewul. ndeysaan macha allah yaa ngi woon ci lii la motivé nga euh, moom laa ñoom Mor Fadam bëgg ma. voilà suñuy def tey tour bi. xam ne daan nekk 300 personnes. wala 205 personnes 250 personnes. ci salle bi non ci école bi waaw. écurie bi quoi mais moo tax xam ma loolu tey moo tax bu tëbee tëb tëb ñëw fekk sa yoo rek di la di la corriger. kon am na lu mu gis ci yow. jamono boobu laa ne ah Mor Fadam nii te billaahi nii laa ko xam na am na lu mu gis ci man. jamono boobu mbapat su ñuy dem bu ma toggee añ pour ñu bëri ñu mbapat dañu naan ah dof bii di dem su demee da man maay daan mais damay mer su ma demee man maay daan mais damay mer parce que mës naa ñëw ci école bi ma ne Mor Fadam man du ma mbër xanaa su may bëri ji kenn du ñëw damay togg añ kenn du ñëw après ma dem fële euh, ma ma ma ñëw fi saako yor toog ma jël sama euh, këyit. Mhm. yëpp ma ñëw ne saako yor këyit yaa ngi nii bàyyi naa école Balla Gaye laa jëm école bi ay dof lañ ma teg. saako yor takk noir fumier sax yàgg naa mën a mbalak takk noir fumier yi di ma reetaan oh non mbër bul dem mhm. yow bul dem champion ngay nekk moom tamit ndeysaan mu gisoon sama champion bu mhm. toogoon ci fi ñu entraîné saal bi benn buum lañ fa defoon buum bu ngand buñ ko waree rooree dañ koy takk rek mun ne bàyyi ba guy gi ñëw ma toogee def série def ci ñetti série cent mi trois cent bu mbiroole mais loolu lépp après résultat la suma yaram mhm. buñ demee mu leen kii champion doon mooy tëj bi de loolu baat yooyu fekkaat ma sama ginnaaw parce que dama ñu école bi ñu entraîné dama daan dem géej euh, presque minuit dem 5 heures ñëwaat nelaw 10 heures ma dem saal ñëw récupérer tout dem contact su mhm. ma du ma doy man suñ fa jógee ma dellu géej noonu laa doon liggéey guy boobu am na doole de non loolu kenn waxatu ko loolu du ay sax ñaan waaw ñaan quatrième position la mais dama gëmoon itam parce que man da nga daan ñëw yor sa galaaj ma xëppoo ko ne dama lay daan foofu laa bëgg ñu ñëw dama lay daan parce que lu ma gëm la parce que gëm gi mooy moi mm-hmm. j'ai à faire loolu dama gëmoon ni feer laa te loolu moo am ah. bi bi nga duggee ci làmb li gën a tax nu teel la ràññee. guy gi mhm. def benn ñaar ñetti kombaa rek. Mhm. daal di commencé am tour ñun ñu commencé ko bàyyi xel. Mhm. bokk na ci euh, dafa ñëw. indi style bu bu bu bu ñu xamul woon ci làmb. comme li mu wax léegi ñun ñu jàppee ko dof guy gi di xotti ay yéreem. di xëppoo suuf si di nangu ay biteelu adversaire am di ko xëppoo confiance boobu lan la woon exactement. lan la moo defoon confiance boobu ci guy gi. kooku man kooku li ma lu ma ma gëm la. Euh, depuis depuis sax avant may ñëw ci làmb mhm. parce que man surtout Amari Ndag laa surtout maam Boubou Seck mhm. sama sama sama sama maam moo demoon Samba Sadio mhm. deret jooj mooy daw suma yaram waaw su ma toogee bu ma leen li jongante la du ma nangu nga jël ko yàlla tere du ma nangu waaw waaw ndax ma nangu jël ko macha allah Samba Sadio histoire Samba Sadio bu ñu ne guy la a mel des fois dama daan ñëw ñun day xabtal sa maam nekk Amari euh, euh, Ndag nga nekk surtout maam Boubou setu sëtu sëtu Baye Soulay Seck mi jur sama papa kon bu la nii xadar boobu ci yow rek sam papa sam papa àgguma ko fii sam papa àgguma ko fii sam papa day buy waaxu ni rek nga xam ne kii kii nitu nitu njaxlaf la quoi waa loolu nag moo ma motivé mhm. xam nga ba xam nga waaw nga am benn fugg am benn arñi mhm. bu guy gi duggi xotti parce bi may ñëw li tax ñu tellement ràññee mhm. ma ye ma ma yeggal foofu parce que dama ñëw euh, xam ni kenn ku ne am nga sa slogan bopp waaw ma ni non non naa fi indi Euh, sama solo boobu bopp. indi sama xotti jasneer. waaw xëppoo suuf parce que jasneer doo gis mbër moo xam ni di taxaw caméra bi jël nga xotti ko. nga fecc ba sa yaram tàng xotti. amul loolu ci man lay amee ci man lay terminer. parce que da nga yaakaar boo ko xottee. Ah. yow moom doo solaat. <laughs> te man moom jasneer lu mu bees bees loolu man du ma ci image yaa ngi fi. dama lu mu bees bees dama koy xotti. Mm. te lu mu bees bees bees bees gëm naa ne li muy bëggeel fans yi man loolu moo ma gënal Jesner bi. Hmm. parce que dañuy kontaan tellement. ba pare loo sañse sañse sa yére lu mu chercher da nga reposé. sëñ ko waree saar ne ko loolu tax ma bàyyi ko mu ne bàyyi xot waree saar woo ma yoon nag ma xam ne lii ñor na waree saar ma bàyyi te waree saar lu mu bëgg bëgg naa ko. lu mu bañ bañ naa ko. donc sëñ Abdou moo la tere reposé suuf si. ak yére yu war a xotti waaw moo ko waree saar ma xam ne kii ñor na ko des mais mais mais mais man boo ma gisee ni may kii ma xam ni sama xol la nekk parce que fans yi ñoo laaj loolu boo seetloo drapeau souvenir mm. bi may ñëw stade maa ngi ñëw stade stade bi géey mm. boobu Sénégal ñoo ñoo def 2-1 xaw ma mm. ma ñëw stade Mar Diop Iba Mar euh, RTS ñoo yor image boobu noonu ma ni nii kii tëggal ma baaba mu tëggal ma baaba ngum tëgg tëgg xaw a réer buusa dem waxul li ma war a fecc mais bi ma baa magom tëggalee ba ma ba ma ba ma xotti jasneer xëppoo suuf stade bi yëpp jug taxaw ci nga solo jasneer bu vert ba bu ah yow kon yow yow kon maara da ngay topp làmb ci la waa ji ñëwee uh-huh. compté un million sama kanam dama ko mooy président Nigéria bi waaw naan nii dama ko jox compté un million ma pare jël un million yi séddalawaat ko géwéleeg yooyu buuse kii kii ma àndaloon buuse ak zee mm-hmm. ak zal bi ma àndaloon ak lons euh, ma parce que bi ñuy dem sax ndox muñ naan amu ko amuñu yow nga dem may 1 million ma may ba pare amuñu ndox soo waxee buuse buuse xool fii. <laughs> buuse soo waxee zee xool fii. loolu daal <laughs> zee parce que zee daf ma xawoon ruus su ma ko nee zee mu ne waaw waa mbër. waaw léegi ni ni def su ma xoolee fi ma ma nii. <laughs> non mere nañ ma billaay mhm. man loolu laa yooyu mhm. xaalis yooyu mosuma ko lekk. Mhm. loo ma may ci géew dama koy jox géew li joxaat leen leneen. waaw mm. dañuy dugg ci sax ay combat guy gi dugg na ci arène def benn komba am ci ndam deuxième mm. combat mu ñàkk ko. Mm. après mu dellu si waat. tegalewaat ay victoire amaat defet mais guy gi am benn compa boo xam daf ci jóge rek mel ne loolu moo nekkoon combat combat bi ko war a déclenché daal di tegale benn dynamique six victoire mm. ba pare daan ay ténor mm. tegale bébé Saloum tegale a neex mm. tegale ñu bëree bare bare bëri ba ci amaa Baldé après lan la défaite dafay defar mbër waaw waaw dafay defar mbër mais man suma carrière euh, Mara mm-hmm. man maa gën a gaaw ñu nekk ci làmb yëpp carrière waaw parce que tey ngeen jaañ dañu man guy gi a fausé foogoon nañu xale yi moo ci njëkk njëkki roi mm. mais jàm pexeem yàlla dogalam mm. ak pakk-pakk yu bari man damay jàmbaar rek ma bàyyi mbër yoo xam ne yu mag dem am tur toog ci sëriñ fay ko pour ma daanoo hmm? ak waxtu yàlla wi billaahi wallaahi taala ay mbër yu mag toog ci sëriñ guy gi dund na lool ci làmb euh, non am na ñoo xam ni sax nas maa ngi nas nii nit nit da koy wax nga dégg ko mais nas yooyu moom nas gëmul yooyu quoi nas dalay mal naan ah kon yaa dem lii ak yi détail mais hmm. yooyu xam nga bu doon nit ki da koy def mu jàppale wala nga gëm ko hmm. mais man gëmuma loolu xëy na xelam foofu la toll mas naa wax sama benn bi may bëgg a bëri rërëg di ko wax hmm. ma doon jooy te loolu lu ma gëm la na ko bu mu dem ak ak yeneen mais xeexante boobu lu koy indi entre mbër que boo xasee rek yor bi ñu ni da ngay génn rek pour ñoom da nga wala ñoom dañuy xam nga te yàlla mooy borom faalement yooyu yàlla lu ko neex lay def yàlla lu ko neex lay def kon dañoo war a xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi yàlla maye mooy xañee mhm. yàlla tege lépp nan ba ma ko xamee laa noppul moom la neex musuma dem ci sëriñ liggéey mbër dama la naan bu ma kenn jàpp ngeen mhm. yow da nga am fit de ko bu ma kenn jàpp yow bu ma kenn jàpp rek mais daanoo dem ci sëriñ ne ko jox ko turu mbër mi pour mu jàpp ko ci gàllaaj non loolu mënul nekk mënul ñàkk ki lay ñaanal danaan la turam mu ngi tudd loolu su ma toogee di ko wax danaa ne ngay fen mais pour comme liggéeyu bon yi ñuy def ñu la suulal ci armeer wala daggal guy nga nga bës kii wala nga daaj pont ak yooyu hmm. moo yow loolu dinaa ko def du ko def dama lay jox turam nga ñaan nga xool li saxaar sarax yi war a génn hmm. sacrifice yi ñuy def mooy sax génn bëy wala xar wala nag te dañ koy rey rey julit hmm. sama benn combat ku ma doon ñaanal contre contre contre Boy Niang mm. sama ginnaaw booy ñoo ma ko nettali dañu ma dafa rey ginaar jaaxa jublu ko sawu ko ma boobu boobu la ma gëj a ñaanal boobu la ma gëj a ñaanal ok donc yow sa sa ay gàllaaj bëggoo muy rax loo xam ne non non làmb day jeex léegi nga des fekk suñu borom ko mm. euh, parce que man am na benn sëriñ boo xam ne bisaaw la jóge woon mm. ma indi woon ko jox ko foofu appartement contre Boy Niang parce que bi may doog a ñëw combat bi doog a taxaw boobu dama pare woon mhm. ma dem bam trois fois mu yàqu ma feebar ci diggante moo sëriñ bi mu ñëw ñu waxtaan sama benn boo xam ne bëloo moom loo ko sant ma def ko mhm. sox la sama doom la quoi sëriñ <laughs> bi ah, ñëw ne dafa soxla am na soxla ci nit quoi pour toog ci mhm. <laughs> ma bàyyi foofu bu sedd mu jekki-jekkaat mu ni benn xar benn xar la soxla bu xaw ma deux couleurs ñu yóbbu ñu yóbbu ñu yóbbu ko ba ci géej gi ba ci digg bi rek ñu takk ko bàyyi mu sedd mu daanu quoi après léegi nag bolone moom bolone waaw mu garaal mun a def loolu ma ne ko non loolu bàyyi loolu loolu mooy lan xam nga après ci la boloo xam nga ci la boloo euh, xam nga. Mm-hmm. xam nga bàyyi loolu parce que bu ma ko waxoon moom da def parce que moom sama ndam jëlal na ko lu ne quoi. waaw mm-hmm. ah, di ko nuyu di nuyu sama taaw baro sama combat daf ciy sonn wax dëgg yàlla. waaw. Mm-hmm. Ah. très bien loolu bokk na ci carrière guy gi mais bëggoon naa xam guy gi. ci sa carrière ban combat moo def mbër. sama komba bi ma def mbër moo bi ma gën a def mbër. Mhm. mooy komba kii kii building. building waaw dama ko man mu daan ma. Mhm. waaw man naa ko mu indi woon ak boole ko tabaski jàppoon ma li ma joxoon ma jënd waaye xar entraînement ma. <laughs> bilaay dam ñu daan ma. yaa man moom kat. mu metti la. non li tax mu metti ma dama ñëw ñëpp yaakaaroon may daan ma yóbbu supporteur yu bari. waaw am ñu bëri ay xale. Mhm. ñii di tëdd ci oto bi bëgg oto jaar seen kaw. yépp ma bàyyi mu sedd ma ne mm. kii kat boo léegi incha allah mm. du amaat waaw daal di jug boobu laa tegle nag samay dynamique xam ne man mii warutuma laal suuf ok mm-hmm. nga nga ñëw après comme sànq ni ma ko waxee samay biir kàddu nga am benn dynamique de victoire boo nekkoon mm-hmm. tegale ay victoire tegale ay champion yoo xam ne ñu ci bari ci ñoom Bébé Saloum mi ngi koy daan boobu am nañu gëmoon ne Bébé Saloum bi muy bëri moom dañoo xam ne dama ñëw tax taxañ waaw te booy seet dama ko dóor arrêt de gauche tëw ñu dóorante nii ci la daw song ma jël ma. Mhm. ci laa ko ne jeex na. dootoo ko doon non <laughs> ci laa ko ne jeex na deux temps laa ko def boobu deux temps laa ko def. après Bébé Saloum euh. Mbaye Diouf mhm. après. waaw non man Bébé Saloum.